fa in turid dem na ngaa namm kashfal xijaabi wuññi kiiraay la maanaam muri kiiraay la wala wusoola ak àgg ga falaa tufaariq bul teqalikoog adaban teggin xaytu tamiilu foo man di jeng ku nekkal muta addiban di aji tegginu maxa rahmaani ànd ak aji yërëme ji wa maxa xalqihi ak ànd ak ay mbindeefam bi kulli shaanin ci mépp mbir cosaan la moo doon bi kulli shaanin mu dellu ne ko yow Mahmoud Mbegere boo bëggee am yàlla na nga jàpp bu baax a baax teggiin maa ngi dellu di la dénk teggiin boo bëggee jub am añub jub jàppal bu baax a baax teggiin soo bëggee baaraas bi doxoon sa diggante sa boroom dañ ba set wecc nga àgg ci moom na nga sax ci sàmmoonteeg teggiin te bañ wacc mukk teggiin teggiin nag dafa am lu dox sa digganteeg sa boroom ak lu ca dox sa digganteeg say moroom muy mbindee fi yàlla yi booy sàmm teggiin na nga seet teggiin sa digganteeg sa boroom seet teggiin sa digganteeg mbindee fi yàlla yi famin te addu bi ko bokk na ci sag teggiinu ma rabbil bashari ànd ak buurub mbindeef yi tarkoo tiraadika bàyyi sag dingat alayhi ci moom fil xadari ca dogal ba ka an taquula li ki ngay waxe xiina xifta ci waxtu wa nga ragalee ak xaw na tiit ma ne laxal lëxoo xëy na lee moom laxal la day yaakaar walay taxoo ak aka neexoon moom layta day mébét wa lawlaa ak lawlaa budul koo nag warda na nga gërëm bi kullimaa ci lépp loo xam ne al ilaahu buur bi ajraa dawal na ko min qadarin ci ab dogal ba tastariixa kon na nga noppalu ak dëhëra ci jëpp jamono falaa tëkkun bul nekk xodd baana di aji mer kurhal qadari ngir sib dogal ba fatut xiba ba ngay sonal ak naf sa bakkan ba ak yow sama mbokk fit dëhëri ci jamono ba fit dëhëri fakkuluma lépp loo xam ne araada hoo namm na ko allahu yàlla assalaamu bi aji mucc ci ayib fala yarut duhu du ko delloo ibaa un bañ wa garaamun aku naqar fa in takun dem na ngaa nekk tarda di gërëm bi kullimaa ci lépp loo xam ne xadara dogal na ko fa anta kon yow du basiratin boroom gis gisu xol nga wa du basarin tey boroom gis gisu bët mu ne ko teg yi nag sa diggante sa boroom la ci jiitu mooy lu mu dogal rek mu neex la na nga moytu lool yàlla dogal nga naa ak a neexoon mu dogal leneen ah mbaa yaakaar naa de moom nangam ak nangam mbaa cay budul koo nag nangam lay teggin daal sa digganteeg sa boroom mooy lu mu def rek sa xol sedd ca nga jàpp ne noona la lu mu def rek moo gën la mu defut kon lépp lu yàlla dogal rek na ci sa xol sedd nga gërëm ko da nga daal di noppalu biir ak bitti waaye boo bëggee nag bu sa boroom defee dara nga cay amu naqar ku tiis kon yëgal ne ci aw naqar ak ku tiis rek ci ngay dëkk ndax yàlla moom moomoom lépp sañ lépp lu ko ca soob lay def boo saxee nag ci lépp lu mu dogal sa xol sedd ca nga gërëm ko xamal ne kon boole nga gis-gisu bët ak gis-gisu xol kon am nga lay tax ab jaamamat da mooy boole gis-gisu zaahir ak gis-gisu baatin bu ñu nee nag lay teggin mooy lépp lu yàlla dogal rek mu neex jullit bi dañ cey génne yaar yoo xam ne moom waru koo neex benn ba mooy weddi ba ca des mooy lépp luy xeetu mooy yàlla weddeeg mooy yàlla yaar la yoo xam ne dara waru ko caa neex lu ca nekk da ko war a dawaka musloo ka dawloo doomi aadama yi wa minhu bokk na ci teggin nag sa digganteeg sa boroom yaa ax yow sama mbokk alxayaa kersa wa sabur ak muñ kama taqaddama naka mu jiitoo woon wa minhu bokk na ca ashukru sant mu ne ko nag bokk na ci teggin yi nga war a sàmm bu baax te waxoon naa ko ci gannaaw mooy am kersa sa digganteeg sa boroom am kersa sa digganteeg say moroom am kersa sax sa digganteeg sa bopp lépp loo xam daal lu mat a rus la nga rus ko sa digganteeg sa boroom rus ko sa digganteeg sa moroom rus ko sa digganteeg sa bopp ak muñ muñ da ko waxoon ne ko daa mel ni bopp mbir ma nga xam ne bopp moom bu daggee rek beneen cër moom mën naa dagg te du tey jëmm jëy dund waaye bopp ba moom bu demee ba tàggalikoo ak jëmm ja yi jàpp ne dund am na tufa ñu waxoon ne muñ noonu la mel ci mbir yi moo tax mu ne ko dénkoon naa la muñ kama taqaddama ak sant foo tollu del sant sa boroom ci sa xol sa làmmiñ say cër lépp bokk na ci xeet teggin yi wa minhu bokk na ca al istiqbaalu jublu xibla fil majaalisi ci jataay ya wa minhu bokk na ca al istixfaaru sàkku njëggal faltu naafis na nga ëppalante ci lépp lu baax wa yorafu def na xam minhu mu bokk ci teggin ay bon ba tey adduhaa u ñaan wal xawf akuk ragal wal itraaxu akuk sëngéem war rajaaw ak yaakaar war sumtu ak noppi wal xuslatu ak beru wa tawakkulu akuk wakiilu wa zuhdu akuk dëddu wal warax akuk sàmm wa tabatul akuk beddi ko ci jaamu yàlla yam ko waxoon ci gannaaw ne ko jikko yi jullit la bari na ci ñoom baamu waaye nag dafa teel a wax bi yoon jublu xibla maanaam fi nga xam ne boo dee julli fa ngay jëm boo julli wutit boo toogee rek fexe ba jublu xibla daa bokk ci li ñu taamu lool mu bokk ci teggin lool diggante jaam beeg boroomam ak bari la jéggulu yàlla al istixfaar daa bokk lool ci teggini jaam bi digganteem ak boroomam ak bari la ñaan ñaan daa bokk ci xeeti jaamu yàlla yi gën a màgg bañ ne adduhaawu muxul ibaadati wala adduhaawu al ibaadatu ñaan mooy yuq jaamu yàlla mbaa ñu ne ñaan daal ci dëgg-dëgg moo di jaamu yàlla mu nekk bokk na ci teggini ngay ragal sa boroom di ko teewlu ba muy feeñ ci say cër nga xam ne da ngay sëgg sëngéem ndax teewlu goo teewlu màggu jëmm ji nga xam ne boo ko gisutit moom mi ngi lay gis war rajaaw muy yaakaar mooy ànd ak alxawfu ragal mais ragalaw yaakaar dañu ne ab julit ab taalibe da leen war a jàpp bu baax ñu mel ne yaari laaf yoo xam ne ca lay naawe ndax ragal dëgg-dëgg bu ëppee day taxa naagu yërmande yàlla yaakaar itam muy rafet njort ci yàlla bu ëppee day taxa bari ay bàkkaar kon nag ragal yàlla ba di moytu lépp lu mu tere te jàpp ne da nga mucc ji la mu ca tëkkoo rafet njort it ci yàlla bay def la mu digle te rafet njort ne la mu ca dige mooy la mu ca dële da nga ci jot boole yooyu yaar daal ab julit mbaab taalibe da ko war a jàppe yaari laaf yoo xam ne ñoom lay naawe bu demee nag ba ñaaw njort ne mu ngi génn àdduna jëm ci boroomam mu ëppal nag yaakaaram ndax li addis ba ne suñ boroom ne sama jaam la mu jort ci man rek la fay fekk mu ne koy bokk na ci teg yi ñi sa digganteeg sa boroom ngay téye saw làmmiñ ci lépp lu amul tuyaaba di beru di di ko wekk say mbir lépp loo xam ne wàllu àdduna la boo koy jàpp it nga yéene ci defa rek ko àllaaxira te moytu nag jublu daray àdduna te defare ko àllaaxira taxut nga di ko jublu mu baamul ko lam ko waxoon ci sàmm mooy lépp lu lënt ñu nattab li ay naam ayut na nga ko sori bala mu laa yóbbu ci la araam ngay farlu it ci di beddiku ak dogu ak sa bopp rek jëm ci sa boroom bañ a jaxasoog lu lay yàqal sa digganteeg sa boroom te mooy di moytu jaxasoo boo xam ne mënoon naa ñàkk te amul njariñ amat ta addubu ndaal teggiinu nga maxal xalqi ànd ak mbindeef yi fa antu baj ji la moo di nga màggal ak sax sa jëmm ja alkabira ja di aji mage xay suxaan na fu fi feeñe wa tarxamate nga yërëm ak sax sa jëmm ja ak saxira ja aji ndawe kal wala di ni ki doom wacc xalante nga def mis la ka samaroom kanaf si ko mel ni sa bopp du fàdd kon def na la jariñ mu ne ko teggi nag sa digganteeg mbindeef yàlla yi da ca gën a gàtt mooy nga def mbindeef yi ñetti xaaj koo ci xam ne moo la mag nga màggal ko fonk ko ngir yàlla doon ci sax boo dee xool zahiram dafa nuru ko xeebu koo xam ne it yaa ko mag nga jàppe ko sa rak yërëm ko ni nga yërëme sa doom taxaw ko ni ngay taxawoo sa doom koo xam ne yéen a maase sorewu leen nga def ko ne sa bopp di ko bëggal lépp loo bëggal sa bopp di ko bañal lépp loo bañal sa bopp di ko laabire ci lépp loo xam ne mën na koo jàpp jariñu mbaa mën na koo moytu mucc in xaraxat ka ndeem lakk na la lahabul miraa i tàkk-tàkkal werante fas fi nanga ko saafara bi maa i sumti ci ndoxul noppi wal ixab daay akuk du mooyu wal ixab in la dawat ka ndéem matt na la maanaam fett na la xaqrabul xisaami jiiti xuloo faraqihaa na nga ko mocce bil xaf yi ci jégle wa salaami ak jàmm in saawarat ka ndéem jànkonte naag yow xayatul adaawati jaani noonooga faraqiha na nga ko mocce bi nusxi ci ak laabiir wa saxaawati akuk tabe in askarat ka ndéem bëgg na laa màndal xamru gayvin sàngaras mer wa xasadin ak kañaan fashrab na nga naan miyaaxa sabri ndoxi muñ wa zuhdi akuk dëddu tu fadd kon def na la jariñ mu ne ko maa ngi lay dénk bul werante bul xuloo bul noonante kenn soo demee ba werante bëgg laa lakk mel ne sawara fabal ndoxum téye saw làmmiñ ak dumooyu daal di koy faye sawaraw werante woowee werante moom nee na ko lu yàgg-yàgg bu la ci kenn yóbbaale boo gisee werante ñu bëgg la caa yóbbaale dalal di téye saw làmmiñ te dumooyu wax joojee mel ne bokkatoo ca mu ne ko it xuloo daa xaw mel ne jiit yoo xam ne boo yeexee mu fett la waaye nag bu la jiiti xuloo fettee am na loo koy mocce mooy daal di baal kookee nga xam ne moom nga doon xulool fexe ba doxali jàmm rek seen diggante bu dara dox sa diggante ak moom mu ne ko it noonoo bu melee ne jaan dal lay mat dalal di gaaw lugge ko laa biire ak tabe yow sa bakkan ak sa bànneex ak seytaani àdduna doy nañu la ay noon bul sàkkaat beneen noon kon nag boo gisee lu mel ni ak noonoo nar a dox sa digganteeg beneen jullit jàppal ne jaan la joo xam ne màtt na la te mat naa lugg na nga koy luggee nag mooy daal di doxale sa digganteeg sa mbokkum jullit moomee lépp luy ak laabire ak yéene ko jàmm ak waxal ko jàmm ak sax loo ko mën a defal ci njariñal zahir mbaa baatin nga daal di ko koy defal mu ne ko it mer ak kañaan lu ci mel ne sàngara mel ne dafa laa bëgg màndal bëgg laa fàbbi seetal loo ca mucce bu la mer ma gëf ba nga wax mbaa nga def loo xam ne sa jirub dund rek doo dañ di ko réccu da ngay daal di muñ rek bañ a topp sa mer kañaan it moom fexeel ba jëmm ju ne la ko yàlla defal nga yéene ko ba yéene ko lu ko ëpp la lay dimbale ca loola nag mooy bañ a bëgg àdduna ngir àddunay kese boo dee bëgg àdduna itam nga bëgg ko ngir defare ko alaaxira mooy tax doo añaane beneen jullit in abat ndem bañ na an nafsu bakkan ba bila rujoo xen ci ak dellu fokku nekkal mu xaariban di aji xarenteeg la xàññeel ko bil jooxi ci xiif wal intizaali akuk beru tuma bittibaahin topp ci topp takkun kon mu nekk moom bakkan bi mutiixatan di aji topp bilaa nisaaxin ci lu xëccoo bilaa nisaaxin falaa takkun bul nekk mujaahidan nafsi di aji jihaar ak bakkan bilaa juuxin ci lul xiif wa dullin ak toroxte xaysu durruhaa foofu xam ne lorom ja jalaa feeñ na id ngir laa yu naalu deful am a naf njariñ la fiihaa ci bakkan bi abada mukk illaa bi tajwiixin dara ci ak xiifal wa tadliilin akuk toroxal badaa goog feeñ na fal jooxu xiif ba rësu maali ahlillaahi mooy rësu maalub ñooñ yàlla kama xakaa naka ma ko nettalee saaxibul intibaahi boroom yewu ga xëy na al intibaah doon turu téere waaye bu dee turu téere nun xamuñu ko mu ne ko nag sa bakkan moo gën di sab noonu di gën laa jege boo ko bëggee teg ci aw yoon mu gàntu nag xamal ni xiif rek mooy tax nga gaaw koo daaneel daal di koy delloo ci yoon wa bul defee ni mukk mën ngaa bëreeg sa bakkan ba daaneel ko te xiifaloo ko bakkan moom boo boolee xiifal ko ak toroxal ko fexe ba du am menn mbañ boo ko defee daal koy ëpp doole mu ne ko nit yàlla yi sax dañu ne xiif mooy seen rësumaal nit yàlla yi seen koom seen rësumaal seen capital mooy xiif rek bakkan bi daal moom boo ko dee xiifal doo ko bàyyi mu regg da koy daal di gañe ëpp ko doole mu daal di nooy foo ko jëmale mu jëm fa tadyiixu ka sa xatal an naf sa bakkan ba yu wat ji day joox an nuura leer kama yu wat ji ni kiy jooxe xaq suufoo safaanam ba ak tuuboora alkande min ajlisa ngir lii kaana nekk na asiyaamu koor ga afdala di gën li sharihin ñal aji fuqale min xayrihi ci ludul moom fii maa ci la nga xam ne jalaa feeñ na li an na batt na shaxsi ngir naka biirub jëmm ji in jaax bu xiifee shabiha regg jamihul aada i mboolem cër ya kama qaala ni ki waxe alwarihu aji sàmm ja kazaaka naka noone in shabiha bu reggee jaaxat ñoom ñu xiif ñoom cër ya walida ngir lii yu umaru def na digle bil jooxi ci xiif faraaxi na nga sàmmoonteeg almaqasa jàppukaay ba mu ne ko sabakan moom moo yor lépp sabakan loo gën di xatal di ko gën di teg ci aw yoon yàlla yokk laa yokk leer sa mbir gën di jub gën di tegu ci aw yoon waaye nag loo gën a boyal sa bakkan ca la ko neex mu gën laa jëme ci alkande gën laa yóbbe lëndamuk biir ak biti mu ne xiif moo mën a defar bakkanub nit loolu moo tax ñu naa sax koo xam ne yàllaa ko nattoo ci foqale maanaam bëgg lekk lool woor moo gën ci moom leneen lu mën di def ci xeeti jaamu yàlla yi ngir di ko yare boppam ndax kenn ku ne la mu xam ci bakkanam te mu tee koo maneeg boroomam bu bëggee yar bakkan ba day jëflanteeg moom ci safaanub loola bu xamee ci boppam bëgg dara jaag ak siiw nay fexe ba di nëbbu boppam di moytu lépp lu koy jox daraja mbaa lu koy taxa siiw nga xam ne daal kenn ku ne bu xamee la ko yàlla nattoo tamtee koo mëneeg boroomam rek nay seet safaan ba la nga xam ne moo koy faj mu di ko jéem kon kii nga xam ne yàlla ko nattoo bari ak lekk ak xiir ci lool nay bari la woor mu ne it li tax xiif moom baax day mel ne boo xiifee mboolem say cër moom dañuy regg mooy mooy rek day mel ni sa cër yépp moom dañuy dal yaru bu dee tànk yi duñu sawar a dox lu seen yoon nekkut bu dee loxo yeeg bët yeeg mboolem cër yi daal boo xasee xiif amu ci lenn luy jekki-jekki rek bëgg laa sonal ci dugg ci lu yoonam nekkut bu biir bi xasee regg nag mooy jëmm ji su biiram reggee day mel ne mboolem cër ya ca des ñoom dañoo xiif mooy boo xasee regg cër bu nekk moom day taxaw temm ci bëgg laa dugal ci loo xam ne sa yoon nekku ca saw làmmiñ sawar a wax lu yoonam nekkut say bët noonu say loxo say tànk moom daal boo xasee regg moom mboolem cër yi ci des benn bu ci nekk day taxaw temm ci jëm ci loo xam ne sa yoon nekku ca lu lay lor la mbaa boog lu la amal njariñ mbaa sax muy bàkkaar xool moo tax nag ñuy digle nee na xiif wasrifan na nga wëlbati alximaama yitte ya li rahmaani jëm ci yàlla mi aj yërëme anil wara walis mindee fi fii kullima ahyaanin ci yépp jamono mu ne ko nag maa ngi lay doollee dénk sa yitte yépp nga di ko jëmale ci yàlla weesale ko mindee fi yàlla yi te xam ne yàlla moom moom rek a fi nekk mooy dafa ko dindi bi ñu aaye sax ku jëfalanteeg mbindeef yi waaye dañoo bëgg mbindeef moo mën di jëfalanteel nga bàyyi xel ci ne yàlla mooy doxal coobareem seen diggante la ngay jëfalanteeg moom fexeel ba bañ caa jàdd yoon wa lu ca mel ni sa aaja faju na ca nga sant yàlla sant mbindeef moomee bu ca leneen amee itam nga xam ne rek yàlla bul ca xarab mbindeef moomee wasal na nga ñaan rabbaka sa boroom kullama lépp loo xam ne turiidu da nga ko namm haza lii allazi mooy li nga xam ne uusika naa la ko dénk yaa mahmudu yow mahmudu fa in takun dem na nga nekk mustaamilan di aju jëfandikoo bi ci moom tafus kon nga tuufu mbaa kon nga texe xunaa fii waxan naa ak ca foofale muy ca àllaaxira wa taxus te kon nga làq maraamaka sa càkkutéef wa dum na nga sax nag xalaa taqwal ilaahi ci ragal buur bi albaari bi aji bind wala tuxaalif te bul jiyoonteeg sunnatal muxtaari sunas kañu tànn sunnatal muxtaari muhammadin te mooy muhammad salla yàll na dooli tedd nga wasallamati dooli wóolu assamadu yàlla kiy jubli ci aajo alihi ci moom wal aali ak ñooñ na wa saxbi ak saxaabaam ya abadan faaw an haytuhoo àggale naa ko bi xaw ni rabbi shaani ci ndimbalul boroom mbir ma bi xaw ni rabbi shaani mooy cosaan nasihatan mu dig laabire laka ñeel la wala ixwaani ak ñeel mbokk ya jaxalahoo yàlla na ko def moom yàlla murshidan muy aji jubal li xaari iihi ñeel way jàngam bi man ci daraja yonante bi nga xam ne xadd usalli baraana ma julli xaalihi ci moom abadan faw mu ne ko maa ngi la doolee dénk itam ngay bari la ñaan yàlla sa boroom lépp loo bëgg rek ndax yàlla moom dafa bëgg lool ku ko ñaan ba sax boo ko ñaanut mu mere la kon nag maa ngi lay dénk nga di ko bari la ñaan rek lépp loo bëgg mu ne ko nag yow Mahmoud lii kat laa la doon dénk boo ko jëfee da nga am texe fii ci àdduna am ko foofee ci àllaaxira am rek lépp loo bëgg ci fii ak fële mu ne ko nag bala maa àggale wax ji naa dellu dénkaat la ragal yàlla mi nga xam ne moom la yàlla suñu boroom dénk ñu njëkk ak ñu mujj wala xad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah mu ne kon nag maa ngi lay delloo dénk sax ci ragal yàlla ak sax ci jàpp ci sunnus ngën ji mindeef yooyu yaar daal moom laa lay mujj wax mu daal di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko nag àggale naa dénkaane bi yàllaa ma baaxe ba ma àggale ko di la ci laabire di ci laabire mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi yàlla mi ma dimbale nag baa def ko mu àgg nii yàlla na ci may mboolem ñi koy jàng jub yàlla na ko def muy dénkaane buy jubal mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàng ka nemmiku ci daraja yonante bi nga xam ne fu ma toll maa ngi koy ñaanal salaatu ak salaam mooy maa ngi ñaan yàlla mu koy saxoo dolli teraanga ak jàmm mook mbokkam yaak saxaabaam ya yaa rabbi yow sama boroom inni naka man taa ibun aju tuub laa ilayka min kulli man hiyin ci lépp lu ñu tere an walis ko maa alimtu la ma xam wa maa lam aalam ak la ma xamut mim maa ci li nga xam ne sabara bàyyikoo na min ni ci man mu xaalifan muy aju wuuteeg li ridaak ñeel sa ngërëm anni walis ma li ridaak ñeel sa gërëm anni wa baddilhu te nga soppi ko xasanatan ña xasanatan mi aw yiw lii ñeel ma bilaa maxwi haajul ak faram xam ni abadan amin bani sëñ bi nee na woon bu leen nangoo jàpp ci kenn bu leen nangoo tënku ci kenn ku may yàlla mi nga xam ne mooy dund te du dee mukk mukk ku bokk ca moom day jeex moom rek moo dul jeex kon nag bu leen wéeru ci kenn ku may moom yàlla rek yàlla ne boo gisee lu baax fexeel ba lu baax loolee woomat la jëme ci sa boroom te mooy daal di def lu baax loolee ndax lu baax moom boo koy def rek yaa ngi jëm ci sa boroom boo gisee itam lu bon lu bon loolee na la woomat jëme ci yàlla waaw lu bon lu mu lay womati jëm ci yàlla mooy lu bon loolee nga gis bu fekkee mas nga koo def nga tuub ko tuub gu sell dogu ci bañ koo defati mukk mukk mukk bu fekkee da nga caa nekkoon mbaa lu ko nuru lu mu yemal ba tey tuubal fi saa sa tuub gu sell génn ca ba set ca wecc nga xam ne kon boo gisee lu baax ak boo gisee lu bon lu ne war na am loo ci jànge daal di waaru bu dee lu baax la nga taxaw temm ci def ko ndax nga am ngërëmul yàlla ñaawteef wa nag bu fekkee mas nga koo def dal kuy tuub te bañ koo defati mukk mukk bu fekkee nekkoon nga ci it dal ciy génn lu tuub ko dal ciy génn fa saasay saasa boo ko tuubee tuub gu sel rek yàlla jéggal la nga mucc ci safaan ba mu ne yàlla rek am lu bokkute yàlla ak amam aku ñàkk am daanaka benn la ndax moom mu ne it li tee nga mëneeg sa borom it mooy ñàkk bàyyi rek la mu la tere waaye saa yoo soree la mu la tere biir ak biti rek mu ne la ñëwal yow sama jaam bi ak sil ci man ak sil bokk ci samay gaay mu daaneel ak ñaan ne suñu boroom maa ngi lay tuubal lépp loo xam ne lu ma xam la mu bàyyi ko ci man te muy loo tere woon ak lu ma xamul sax lépp lu ma sa bàyyi ko ci man te jiyoog sa ngërëm rek maa ngi la koy tuubal ñaan nga jéggal ma ko soppil ma ko aw yiw te yiw woowee nga bañ koo farati mukk-mukk laa weesu daal te gërëmoo ko soppi ma ko yiw woo xam ne day sax di wéy rek dara du ko toxal abadan amin wa aydan siida faydan innal axirata naka alaxira tatlubu dana sàkku al insaan wala tatrukuhu te du ko bàyyi illa baadal axdi dara ci gannaaw jàpp ga wax wate moom yafirru dana daw minhu ci moom kulla firaarin gépp daw wa man kaana ku nekk yafirru di daw min haa ci alaxira mata laaqathu saa yu taseeg moom xadabathu mu mbugal ko bi on fin ànd ak tar ñu wax ak gënjëñ waaye mooy ak tar wa kadalika addunia adduna yatlubuhaa day sàkku addunia yatlubuhaa dana ko sàkku al insaanu nit waxiya te moom adduna tafiru day daw min hu ci nit ay ya firaarin guuc ak daw ay ya firaarin taxuruhu dana ko wor wa tatrukuhu te mu koy bàyyi min haysu laa yadri yi ci foo xam ne du ko yëg mooy du xam fala taxurannakum mu leen wor alxayaatu dunia dunduk àdduna gi walal axiratu alaxira xayrul moo gën la ka ñeel men uulaa ci gu jëkk ga lu sëñ bi nee na woon nit day topp ci àdduna di ko wut rek te la àdduna yi mujjeeg moom mooy jekki-jekki ne mes du ko jàpp mukk nit nag di daw rek àllaaxira te àllaaxira moom faaw rek mu ne ko nuus téye ko te mu ne kuy daw àllaaxira day bu ko àllaaxira jàppee dana ko yar mbugal ko mettital ko kon nit daa war a daw àdduna dëgmal alaxira àdduna alaxira dañoo safaanoo alaxira du jeex mukk àdduna di jeex fi saasay saasa àdduna lu ko nit wut wut àdduna da koy wor rekk te fa muy xamee ne àdduna war na ko day fekk rëccu wees alaxira it di dàq rekk nit te faaw mu jàpp ko wa min kalaamihi radiallahu anhu maa loo xam ne labtuhoo baatam mooy irtaxiloo laxas leen xabalal irtihaali ci njëkk laxas ga wan siloo te ngeen wàcc xablal managil ci njëkk wàccukaay ya ay li mu ci namm irtaxiloo laxas leen anil manaahi bàyyi ko ca tere ya wan siloo te ngeen wàcc fil awaamiri ca ndigal ya xabla nuzulikum ci njëkk seenu wàcc fil xubóori ca bàmmeel ya lu sëñ bi nee na woon teel leen a jóg balaa jóg a wees teel a sanc balaa sañca wees mooy teel leen a gàddaay lépp lu yàlla tere daal di sanc ci la yàlla digle bala ngeen a dem ci seeni bàmmeel mooy bala ngeen a faatu daal na ngeen farlu ci gàddaay lépp lu yàlla tere te sanc nag ci la yàlla digle mooy tax bu ngeen wàccee ci bàmmeel nopp lu faaw alxaaqilu aji xellu ja laa yatruku du bàyyi xaq laxoo xelam ma ya dóoru muy wandeelu fi duniyaa ci àdduna bal li fi nekk yaaqilu day rat maanaam day yeew xaq laxoo xelam fil axirati ci àllaaxira mu ne ku yeewu du bàyyi xelam muy wëreelu ci mbiri adduna yi day jéema yeew xelam ci àllaaxira mee nga xam ne ci la jëm mooy ku yeewu daal àdduna du ko fàbbi ba muy fàtte àllaaxira fu mu toll rek day fàttaliku àllaaxiraam jee nga xam ne ci la jëm fa in raayta boo gisee chey an dara takrahuhu loolu danga koo sib wa dafaatahu te nga jiñ ko walam yan davian te jiñuwut fa tub tuubal ila rabbika jëm ci sa boroom yan davian kon mu jiñu an ka bàyyi la bila mashaqatin ci lu benn coono bila mashaqatin wa in raayta boo gisee shay'an dara tuhibbuhu la danga koo sopp wa jallabatahu te nga ñoddi ko walam yan jalibbu te nanguwuta ñoddi ko mooy nanguwuta ñëw fa tub tuubal ila rabbika jëm ci sa boroom yan jalibbu kon mu ñoddiku ilayki jëm ci yow bila mashaqatin lu mel ni daana ko faral a wax lu la naqar ci sa bopp nga bëgg koo dindi mu tëla tuubal rekk dellu ci sa boroom yàlla dàqal la loolee bu amee loo bëgg lool di ko ñoddi di ko ñoddi te mel ne mënoo caa jot gaawal rekk tuub tuub gu sell dellu ci sa boroom yàlla daal la koy indil fa saasay saasa kon daal yàgg naa baamu dénkaane boobu mooy lu la naqar ci sa bopp mbaa leneen daal loo xam ne rek neexu la nga di ko falang di ko jiñ di ko jiñ te mel ne mënoo ci dara gaawal rek tuub dellu ci sa boroom yàlla dal la koy dàqal loo xam ne itam loo bëgg la di ko ñor di mel ne dafa laa të gaawal rek tuub dellu ci sa boroom yàlla daal la koy indil yaa rabbi yow sama boroom indi naka man taibun aju tuub la ilayka jëm ci yow fa tuub yàlla nga jéggal xale yi ci man innaka antal xafuur ne saa boroom man maa ngi dellu di la tuubal kon nag jéggal ma ndax yow ab jéggale kan nga wa min kalaamihi radiallahu anhu maa loo xam ne lafduhu baatam mooy man araada ku bëgg an yam tasi la mu topp al awaamira ndigal ya kullahaa mboole seen fal ya aqus na jàpp am ren ndigal waaxidan bu di benn wala yëkkun te na nekk saadiqan di aji dëggal fii axdi yi ci ak jàppam in xaadat kon wommatu ilayhi jëm ci moom al awaamiru ndigal ya bila kul fatin ci lu amul benn coono wa man araada ku bëgg añee jitani ba mu moytu almanaahiya tere ya kullaha mboole seen fal yanzur na seet nax yan tere waaxidan bu di benn wala jitani fuute na ko moytu wala yëkkunte na nekk saadiqan di aj dëggal fii tarki yi ci bàyyeem in sarafat kon wëlbatiku almanaahiya tere ya an walis ko lu mel nii mel na ne waxoon na ko dane woon mboolem digal yëpp yëpp yëpp mel na ne neexut a jëfe benn yoon tere yépp itam neexut a bàyyi benn yoon waaye nag bul xeeb lenn ndigal boo jàppee lenn ndigal taqoo ko dogu ci jëfe ko rek yàlla mën na laa baaxe ba nga far man mboolem ndigal yépp yépp te fekk na ndigal ba nga jàpp rek te dogu ca ca la la yàlla baaxe ba nga man ndigal yi ca des ba tey mu ne xeeti tere yi noonu la mel da ngay seet lu yàlla tere loo xam ne daa mel sa bakkan dala cay bëgg a gaa nga dogu ci bàyyi ko faw faw faw te dogu ci bàyyi ga yàlla mën na laa baaxe nga jaare ca far bàyyi mboolem xeeti tere yépp yépp yépp kon ndigal bu ca xeeb lenn jàppal rekk ndigal la yàlla mën na laa baaxe nga matale mboolem ndigal yëpp yëpp tere it noonu la loo ci mën ci bàyyi ko ci xeet tere yi taxawal temm ci daal di koy bàyyi yàlla mën na laa baaxe ba nga far bàyyi tere yi ca des faidatun li njariñ la azimatun li ajrëy at tawbatu tuub tamxoo day far kullama lépp loo xam ne yu duxilu dana dugale dana dugale annaara yu barjilu dana soppi allahu yàlla sayi aatiim seeni ñaawteef xasa naat ñu di ay yiw xasa naatin wa shukuru sant yasiidu day dolli kullama lépp loo xam ne yu duxil dana duwale aljannata aljana la in shakartum waat naa ne bu ngeen sante la asi dannakum naa leen dolli wanta wat taxal ñu na muy ëmb na fii haataynil kalimatayni ci yile yaari baat alxuloomu xam-xam ya kulluhaa mboole seen wasalaam mu ne lii day wax ju am njariñ lool ju sëñ boo waxoon ne woon ñaari baat ñi day muy at tawbatu tuub ak ashukuru sant mel na ne ëmb nañ mboolem xeeti xam-xam yépp yépp yépp ndax tuub moom dalay tàggaleeg lépp luy yóbboo sawara sant itam dalay yokk lépp luy yóbboo àjjana kon na ngeen sax ci tuub ak sant ndax jaam bu nekk li ci ëpp faaw muy am li ñuy wax ak mooy te mooy gu ne moom tuuba ca war fu mu toll nag yàlla di ko xéewal te xéewal moom sant ca war moo tax suñ boroom ne bu ngeen santee ma dolli leen tambihaatun li ay yeete la wa aslul amri cosaanal digle wa nax yi ak tere qawluhu tabaraka wa taxala inil hukmu déet arte ba illa lillahi ndare muy ñeel yàlla laa mu xàqi ba amul jenn aji dingat li hukmi si ñeel atteem wa xakama te atte na moom yàlla xalaa ànnal awaamira ci naka ndigal ya turuxul jinaani ñooy yooni ajana wal manaax ya tere ya turux turuqu niiraani ñooy yooni sawara ya wa in qaala bu waxee xaayilun aji wax ni mal xukkum lan mooy àtte xul waxal la ñal ko ne ko alxukkumu àtte isbaatu amrin mooy saxal mbir li amrin ñeel mbir aw nafyuhoo wala ak dàqam xan amrin walis mbir wala yaqdiru te du àttan du man ahadun kenn an yan fiya mu dàq maa la nga xam ne asbataxoo saxal na ko allahu yàlla alxakamu mi aji àtte wala yaqdiru te du àttan ahadun kenn an yusbita mu saxal an yusbita maa la nga xam ne nafaahu dàq na ko allahu yàlla alxakimu waxaal te mu wax ne laa mu xaqiba li hukmi mu ne sëñ bi nee na woon li ñuy wax àtte ak dogal yàlla rek ko sañ bu ñu nee nag lan mooy àtte mooy saxalal mbir mbir mbaa dàq mbir ci mbir boo nee suukar dafa neex saxalal nga ak neex suukar boo nee poobar daa wex saxalal nga ak wex poobar boo nee basante wexut dàq nga ak weex ci basante boo nee bëccëg bi tàngut dàq nga ak tàng ci bëccëg ba mu ne nag saxalal mbir mbir mbaa dàq mbir ci mbir yàlla rekk ko sañ te it moom rekk ko man lu mu saxalit kenn mënu koo dàq lu mu dàq it kenn mënu koo saxal mu ne nag jàppal ne moom mi sañ a dogal sañ a saxal moo dogal te saxal ne ndigal yi mu digle ñoo di yooni ajana tere yi mu tere ñooy yooni sawara kon jàppal ne yàlla mi sañ a àtte sañ a dogal dogal na ne digle yi mu digle ñoo di yooni ajana tere yi mu tere ñooy yooni sawara saa yoo nekkee ci ndigal xamal ne yaa ngi ci yoonu ajana boo ko wàccut ajana nga jëm boo nekkee ci tere it xamal ne yaa ngi ci yoonu sawara boo ko wàcc boo ko wàccut ca safaan ba nga jëm mu ne yàlla mi àtte tey dogal loolu la àtte loolu la dogal te kenn mënu koo teg bi wa minhu aydan innal xamala naka jëf ja in kaana bu nekkee xaalisan di aji sell lillahi ñeel yàlla fa huwa moom fii taabuuti nekk na ci ak gaal laa yaf sudu du yàqu wa in lam yakun dem nekkut saalihan di aji yiw fa huwa moom kal xabaay mi ngi mel ne pënd almansoori ba di duñ weesaare ne suñ bi nee na woon bu jaam bi taxawee ci jëf-jëf ju baax ju sell dañ ko koy dencal foo xam ne yàq du ci mën a àgg mooy daal ku jëf lu baax te yàlla tax yàlla dala koy dencal rek ba nga jot ca tuyaaba ja waaye nag ku jëf te jëf ja sellut moom mook pënd bu ñu wesaare ñooye moo maanaam rek ku jëf-jëf ju sellut du ca jariñu yaa xaaliqa kulli shay'in yow aji sàkk mépp mbir maamu mën di doon istahastu musloo naa bi kay ci yow min ru'yati ghayrika ci gis ku lu yow fii shay'in ci mbir maamu mën di doon sëñ bi daa waxanteeg boromam ne ko yow mi nga xam ne yaa sàkk lépp maa ngi ñaan nga musal ma ci gis dara lu may yow ci menn mbir mooy daal musal ma ci gis ku may yow ci dara lu mën di doon maanaam may ma saa yu nekk ma lay gis ci mbir mu ne te bañ gis leneen ci mbir lu may yow rek loolu nag waxoon na ne yàllaa ko ko baaxe huwa allazi lam ara ghayrahu wala araahu fi shay'in hada wana wala yàlla mooy ki nga xam ne mbir mu ne moom rek laa cay gis duma gis ci menn mbir lu may yàlla